na sénégalais yi gëstu digënté Ousmane Kormak ak sëñ Gundu digënté Ousmane ak Bachir mm. nañ ko gëstu mm. na mu neexee woon mu rok soow fi mu ne nii la ki day wax jëmale gauche ki day wax jëm gauche ki wax jëm droite amna lu ko firndé lolou dinañ ci ñëw pour baña jaxassé débat bi très bien wa donc mm-hmm. les prémices d'une divorce entre Ousmane Sonko ah, euh, et son président de la République mi ngi annoncé wu Hmm. parce que le comportement de Ousmane Sonko neexul Bachir Diomaye Diakhar Fay ça dérange. ça dérange. Hmm. Bachir dañ ko xam ci yar ak teggin ak japp njaamuram liggéey te booloo ciy wax ki ñu gis ko ci xuloo ak xeex ak créer problème. parce que en tant que premier ministre. Hmm. il est nommé. kaw eh, Bassirou Diomaye Fay yow yow attends ma le ben affaire. yow pour yow diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye neex na moment bi yow en tant que journaliste information yi nga am. jot naa ne neexatul de waaye neexoon na loolu nag. non dama lay laaj ci yow en tant que journaliste tu informé est que diggante Ousmane Sonko ak Bassirou yi Faye moment bii neex na. non non tontu yow li nga xam lan seen diggante neex na wala neexul moment bi. en tout cas yi may gis par euh, par par par par euh, nu Euh, no, non waxuma ay signaux yow yow am nga am nga possibilité accéder ci information bi journaliste nga. te xam naa ne yow Bassirou Diomaye Faye ay xarit ngeen. di nga ne. yow Bassirou Diomaye Faye ay xarit ah c'est mon frère. <laughs> waaw jeex na moo diggante ak Ousmane Sonko mi ngi neex wala de non mënuma tontu en en en partant de Bassirou Diomaye. non en tant que journaliste yow yow yow yow en tant que journaliste information nga waaw ah, kon baax diggante bi mënatul neex. kon bi mënatul neex mais. bon il faut que Sénégal il faut xam. Mhm. tamit sama diggante ak premier ministre. xam ngeen bu ngeen xoolee xëy na bàyyiwuñ ci xel. depuis quand lañ commencé di wax.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

parce que Sénégal qu'on le dise ou pas man le président de la République a trop de pouvoir Demain, comme président le président de la République a trop de pouvoir lors de la réforme de la constitution on avait institué le gouvernement pour mon ait une institution mais ça n'a pas rééquilibré les pouvoirs ni au sein de l'exécutif ni entre l'exécutif le législatif et le judiciaire bu ñu nak def des réformes bu mu nekk position bi ci am def nak position de circonstance ŋàññi ku lu ne mu wóor la ne lii xam nga ne du yoon nga di ko ba dem toog mu avantage la nga génn ci baset man je ne suis pas comme ça parce que ma personne elle peut pas être plus importante que les aspirations du peuple sénégalais encore moins pour le Sénégal maintenant li ni ñuy xaar au delà de de de de li ñuy wax ni bu dee opposition bi man dem leen di ku ci ne ci ñoom na xam ne lu muy wax maa ngi koy dégg xam lan moo tax parce que gëm naa ne même ñii wax sax pour opposer wu kese bés dina ñëw ñu wax loo xamante ne dëgg la ak njëriñ la te bu boobaa dama koy jël doxal ko pour njëriñu seen njëriñu askanu Sénégal mais bu dee seen agenda nag mooy ñoom ñaar tôt ou dañu am problème ñaar ñi ànd dañooy am problème que mu nekk jëkkër jabar mag rak papa doom yaay doom xarit seytaane fu ne lay dugg mais dinaa raconter rek une petite anecdote man le le premier ministre du woon sama xarit ah du woon sama xarit de déedéet mais avant ñuy génn kaso bu ñu commencé may pour ñu togg ci lañ waxtaan ci situation bii nit ñi di wax mu wóor ma ne li ko mën a def rek mooy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 au oh, delà de ça man sama dom. këram la yendu tey te dañ moom moom moo ñëw dem jël ki ne da koy jël si. Senghor ak Mamadou Dia ay xarit ah. non mais wax naa la oh mooy xëy na ñooñu dañoo yàgg xarit avant ñooy kii kii nag dañu nekk xarit juste avant li. sur cette question monsieur le président da nga ni te wax nga également sa biir programme nga jàpp ni président de la république bu Sénégal dafa pouvoir mais suñu ba dafa am ay yi nga peut-être moom moo def est-ce que tay jilé foofu lañu ñu toll maanaam est-ce que da nga ndell len say pouvoir jox ko jamono jilé wala déet. non c'est pas encore fait parce que ça nécessite des réformes. Mais je le dis, hein, c'est quand il veut, nena ko Mais justement, Monsieur le Président, euh, asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziare di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abone di like vidéo yi di leen wax ne maa ngi ànd ak seen sëriñ sii di Muxtaar Mbàkke di seetu sëriñ Baara Mbàkke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngoro rek yàlla da ko see may tawféex bu baax a baax a baax a baax yor na fas goo xam ne loolu képp ko tax a jug ku ci am jafe-jafe rek jokkool ak moom si numéro bu baax bi mais day ñaan tamit day listixaar gars yi dama yéegal niveau bi tuuti waxtaan ak yéen gars yi ñi nga xam ne nag ñoo doon taxaw di di xëy di meew di nar di kàcc di sos nee nañu président Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko seen diggante neexatul ci fan yi di ñëw di ngeen ci xam dara <laughs> ah! man day man opposition bi xawma fan lañ jëm ak diw sonko jomaay bi gis ngeen ñi mu ñii ñi ma gis ni wi ña leen di takale seen nday bàyyi maam sax dogul dem leen ngeen dal ci adam fall yow yaa ne président jomaay ak sonko seen diggante neexoon génnal wax <laughs> tet tet tet no président jomaay sédal na sama xol bi dembu oh pop pop pop pop pop manam maanaam président Basirou jomay non non non non kii kii kii kii yàlla may na ko allahu akbar non no ñun ak Sénégal vraiment wax dëgg yàlla ba yàlla bëgg nañu trop trop trop trop yàlla bëgg nañu lool ñun waa Sénégal waaw parce que nag bëgg ñu weesuwul mu jagleel ñu Sonko ak Diomaye Afrique ba Afrique daj ku fi am Sonko ak Diomaye da ngay jël maanaam 6 la ak 9 boo ci dëpp mooy moroom ja 6 la ak 9 ñun dañoo jàppoon ne Sonko kese la bu dul moom du keneen ndeketi yoo Sonko am na ñaari Sonko ba ñett ba ñeent am na ci yoo xam ne ay Sonko yoo xam ne dañ leen a dënk day denc leen ci roq instant bi mais yéen da ngeen xool président Bassirou Diomaye fay kan ngeen di gis boo leen xool Diomaye koo leen di gis ndax doo leen gis Sonko Sonko ngeen di gis boo leen xool Sonko Diomaye ngeen di gis moo tax meewkat yi. katchi kadi, fen kadi setané kadi, rambaajkat kadi, taskatu keri, taskatu famille dem len ngeen dallu ji sawi len te teeri gis ngeen ñaar ñi ma gis di ngeen sonu di ngeen tay di ngeen dam di ngeen dee di ngeen xalaat dee mais mëno len jaxase ñaar ñi déedéet mënu nekk de ay xarit lañ <laughs> c'est de ngeen président Diomaye nee man ak mom nekk ñu woon ay xarit de <laughs> mais mais mais président Diomaye dafa neex billaay ñoo Sénégal neex na nag guddi yiñ toll nii non Sénégal neex na torop torop torop torop parce que nag dañu tolloon ay fan ci ginnaaw ay weer ci ginnaaw ñuy dund ci Sénégal bu metti ndekete yow balaa neex day metti quoi xoolal léegi ni mu neexee président Diomaye toog ne la président Sonko ñun ñaar dañu ay njëkk de mais léegi ay xarit lañ <laughs> lu waay man seen président ak seen premier ministre yi buñ jubawul luñ ci man mënuñu ci dara gis nañ fi président bu def jël jël premier ministre am def ko candidat dem ba si biir xuloog moom ne dootul moom bëgg a ut beneen candidat yi jaxasoo mais ñun suñu président ak suñu premier ministre benn lañ bañ na ko ba ci campagne yi dañ ne leen fal benn président am ñaari président promotion promotion fal benn président am ñaari président lii di xew ci Benjamin nag kum naqari bay nga xaru ji waaw parce que wala nga dem tooñ police mu jàpp la tëj la bu la tëjee dootoo am information wala soit da ngay dégg nii kerala nii rek mais boo seetaanee tele tele nga tele nga mën a seetaan dootoo yor sa téléphone dootoo am information yu bari ku bëgg a lii nii di xew nga bañ koo gisati tooñal police mu tëj la wala nga dem ca géej ga nga tëmb fa di fee di dem wala nga yéeg quatrième étage xool noo def ba wàcc ci suuf te doo jaar ci escalier yi yii daal laa leen tegal comme ay option parce que xam naa ne euh, li ngeen bëgg di ngeen gaañu te doo leen ko am président Diomaye Diomaye mii ak président Sonko ku leen bëgg a jaxase ndeyam ak baayam juddooguñ maamam ju jur maamam maamati maamam juddoogul waaw kon nag fen yi tappale yi jaru ko fii ngeen wër taxaw plateau bu nekk ngeen wër fa di meew naan diggante Diomaye ak Sonko seen diggante neexul man tontu président ba Bassirou Diomaye laa doon xaar parce que Ousmane Sonko yàgg na leen wax ne leen may jaxaseeg président ba Bassirou Diomaye maamam ju doogul ngeen weddi ko léegi nag président Diomaye waxal na boppam <laughs> waaw Adama boo paree nga génnaat nga wax de waaw boo paree nga génn wax boo paree génnaatal fi nga jaaroon yëpp ne président Diomaye ak président Sonko dañoo xoloo jaaraat fa nga ne da ngay meew jaaraat fa nga xam nga nga wax waa sénégalais ne leen da nga doon meew li nga doon wax amul waaw bi ci topp nag mooy lépp li nga xam ne président Bassirou Diomaye fay wax na ko démb nag ñun ñëpp ñoo ko déggandoo journalu tappalekat yi di ngeen taxawati jéem a dëpp waxi président bi ñun yor nañ ay nopp ñu ngi dégg yor nañ ay bët ñu ngi doon xool président Bassirou Diomaye yu audiowul bindul dafa wax ñu dégg jàkkaarloo ñun ci télévision di wax ñuy dégg yor nañ ay nopp ñu ngi dégg yor nañ ay bët ñu ngi gis dëpp leen fi ay waxam nag wala ngeen waxoo bëgg koo wax loolu mu waxul di xam ne fii ngeen ñuy fekk. yéen benn instant day mel ni sax yéen yéen a yor bët yu baax yéen a yor nopp yu baax yéen ay dégg ñun duñ dégg voilà lu président bi wax ngeen bëgg koo dëpp wax ko wax waxloo ko leneen lu mu waxul fii nag di ngeen xam ñun ngeen fi fekk président li mu wax ñun ñëpp ko déggandoo ku mu neex jàppal ku mu naqari nga dem géej ah instant ay option yooyu moo fi nekk de parce que opposition ñii ma gis ñii ñu nar a opposé wu dinañ opposé wu cent ans quarante ans quarante dix ans quatre vingt dix ngeen ko comme opposé wu trente dix ans di ngeen ko opposé wu. ndax ñi ma gis pare pare guñ ñii liggéey lañu bëgg te liggéey bi ñu bëgg nii buñ ko sumbee sénégalais yi ànd ceeg ñoom dooleel leen ku nar a opposé wu yaa nar a sonn kon nag nañ leen dem bu leen ko waxal lu mu waxul na ngeen fexe ba li mu wax na ngeen ko bind bu leen xëyee na ngeen fexe ba li mu wax boo leen xëyee na ngeen ko bind bu leen ko sosal bu leen ko meewal ñun ñëpp dégg nañ li wax boo leen di bind bind leen li wax waaw ku yàq ay waxam nag di nga ko defaraat dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag cocc loolu mooy dagg xolu gaa yi sonkooy jomaay jomaayee sonko moom la ñuy bañ a dégg ba nee nañu tapis rouge bi morceau bi rek tapis rouge bi bu ñu gisee ma dox ci sax ñuy xataraayu ak maay dox ci tapis rouge dinaa ci doxa doxa fa mu neex ma wasalaalaahu taala ala sayidina secret Cheikh Sidil Muxtaar ñaan yàlla Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi toog ak sëtam Cheikh Abdoul Aziz Mbacké borom fas nga xam ne doo ko donnee ci ay maamam di fas gu baax ci néew kattan ak ngóor a Cheikh Abdoul Aziz ana fa suñu fas gi waaw ah, bisimilah sëñ mhm. ah, fas gi de day fas goo xam ne dañu koo jëlee woon ci sunu maam Cheikh Sidil Muxtaar